seulement laal yàquñ moto yi. Mhm. waaw ko xam ku yàgg nekk ci campagne. campagne mais mais boo ko gis mais bala luñ rajaxe lépp te aussi tamit seetlu nga benn affaire tey mënoon nañoo di benn affaire moto yooyu essence lay def. waaw mënoon ngaa sotti benn moto bi jël lépp këpp rek costal. mais liñ def mooy replier booy président bi dem maam Ousmane Sonko dem yeneen booy def replier wu ànd dem. c'est ça loolu la xaar baam. Mm. Ousmane Sonko li muy woote nag ba ñu waxante dëgg comme rob moo noonu laa cokkaas mhm. mais lu mu def mooy dafa bëgg na moom fu mu dem débat lay wax te li muy te te yi dañoo cee bàyyiwul xel bàcc waaw ngi réussir benn affaire te ñoom bàyyiwul ci xel di ko jéem off mooy jeunesse leen mu ngi réussir benn affaire bu am solo yoo xam ne opposition bi ak presse bi certaine presse dañ ko doon jéem a diaboliser Sonko moom xam na ko te mu ngi koy corriger mhm. xam nga mooy lan bàcc mooy mi ngi wax booy ne leen képp ku leen di bëgg gëmloo na réew mi loolu nekk réew mënuñ ko yàq juróom-ñaari at ngeen ñëw ñu di ko def gaay na ko xam la ko moytoon président sang bi yow rek la ñuy déglu kon Ousmane Sonko mi ngi anticiper. lu ñu ko man de man de Bécaye bi ma gisee image bi damaa yéemu. waaw ni nii. di ko ah, xaar seetaan kay muy def discours. waaw mais ñu taal télé di seetaan. gis nga mais bàcc léegi xam nga benn affaire benn affaire <laughs> léegi nag kon Ousmane Sonko mi ngi anticiper lu ñëwagul. waaw gis nga gars yi suñ defut nànk waa ji bu leen laminé ci législative yi dóor leen bi soviétique xam nga la ñuy wax léegi dañu naan perte nañ lépp nan lañ mën na def mooy nan lañ instrumentaliser ju maam jeunesse bi ñu jàkkaarloo ak moom loolu loo tax man leen à chaque fois Ousmane Sonko dañ leen mm-hmm. pour ñu bàyyi ko xel fii ak 21 jours yi di jeex chaque fois da koy indi mooy li a jox leen ñu majorité bi te bu leen yàkkamti képp ku leen wax ne réew mën nañ ko defar ci juróom benn weer dañ leen di nax ñoom loolu mënul nekk mm-hmm. lu ñuy wax dañ leen di wax dëgg DER bi nga xam ne sax sama yaay ay Mbodj mi moo ko yoree Euh, délégué délé délégation. kii ah, entre délégation à l'entrepreneuriat rapide mënu loolu mënu nekk entrepreneuriat mënu nekk mënu rapide. Hmm. xam nga mënu ñun incha allah suñu amee doole suñu dee ba am assemblée loolu lépp koy changé kon ñu ngi gëmloo jëm dafay àgg. Hmm. te opposition aussi au lieu que ñu concentré wu ñoom ci seen i programme wax nañu lii lañ bëgg. malheureusement ñu ngi ci leen te moom laay tëjee bàcc Euh, discours Barthélémy Dias dana nekk lu leen maanaam lu leen handicapé lu bari. muy ban discours. mooy xam nga dafa taxaw ci Maïmouna Ndir mu ne suñ leen joxee assemblée nationale avion dootul daw maam ne dañuy maam dañuy dañuy dañuy paralyser réew mi ñu dañoo falay nit pour ñu paralyser réew mi. Hmm. dañuy bloquer réew mi dañuy bloquer réew mi mais loolu musiba la. Amadou Ba boo seetloo ay discours ba lan lay wax jox leen ñu vraiment ñun dana ànd ak ñoom liggéey mais lépp lu ne ko dëgg du nangu mu jàll. courant bi coupé daan fex mu gaaw pare yaa ngi dégg dund gi daan wàññi lu bëri dëggam 12 ans mënoo leen ko juróom benn weer waroon mën a mën ah bàcc ah, euh, imam ba tey ci campagne bi la des ah. ñu gis ne Bougane génn na démb ah. euh, fële ca prison bu Tamba def na sax benn caravane biir Tamba euh, ak leader yi ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm sa kàddu Bougane nag nee na day continuer combat bi. waaw loolu am na solo. mais ma gën a firndeel Koundoul rek ne langage euh, de vérité bi nga xam ne Sonko jox na ko booy bu mbuur bi moo gën a yéeme. bu muy wax booy dem ci ndox mi. Mhm. carrément lay wax sama doom ngeen ak samay rak yàgg naa leen wax ne bu leen dem ñu liggéey réew mi. carrément nekk fa sax naan leen nii ni parce que effectivement loolu moo sa nekk discours am. te nag gis ngeen ki boo wax dëgg yàlla da koy yëkkati dugal ko ci xolu nit ñi. Mhm. waxoon naa ci li ma jàngoon nit ku nekk dafa am mission. mission bi bu pare am na cadeau cadeau bi am na prix maanaam politicien bi nga xam day nax nit ñi cadeau mooy dañ koy fal mais jënd cadeau bi après mooy xëy di ko saaga parce que dalee nax. waaw nga discours ba ñu fal la mooy cadeau bi fal nañu la jox nañu la cadeau bi mais cadeau bi dañ jëndaat ci yow mooy lan dagg la saaga parce que da nga leen doon nax. boo mhm. amee nga wax leen dëgg. Sonko dafa yàgg euh, wax ne toog leen ñu liggéey réew mi. Ah, c'est vrai que yàgg na discours effectivement moo tax naan non naa nga maanaam bi mu ñëwee xale yi gën a tarle non. dafa yàgg wax toog leen. te nag xale yi tamit li ma leen di dénk mooy dëgg-dëgg nag xanaa doone kaay la ñu xeex injustice ba injustice jóge fi. même pas set mois nga ne damay jóg dem kon loo doon xeex. gis naa euh, ministre bi wàllu justice la euh, comment dire encore jeunesse la xaw ma mu dem wax xale yi nekk mbuur ba rongo ñoom di tourné toog la ñu liggéey réew mi réew ñun ñoo koy defar. manoon naa wax ñun suñu suñu génération ñoo waroon yaakam de sax ne Sonko teel a koy defar. mais génération yi ñëw parce que ñun la ñoom lañ doon xeexal am nañ tànde il faut ngeen toog ngeen xam ne seen réew yéen a koy defar. comme loolu ma dénkaane ko mu am solo lool. su mhm. euh, ñëwee ci euh, kaawu bugaan bi comme ni nga ko waxee woon comme fait politique la a ah, nga ne woon naa nekkatuma ci. Euh, yi yi nga xam ne xanaa mu génn laa sonko bu génn laa sonko moom na nga may comprendre nag mais comme comme gën na di génn laa sonko amatul temps bi mm. léegi damaa bëgg a joxe foofu leçon mm. ba ci ci kaaw Bougane mm-hmm. ma jox ko leçon jox ko ñi toppoon ci ginnaawam moo xam journaliste lañu ñu toogoon ci plateau wala ay farandoom wala ñi doon wax di wax ak avocat yi wala lenn ci avocat yi jàpp naa ne war nañoo toog dugg ci ruq mën a kan xool li ñuy foogoon ne moom la wala ñoom lañu ñu xam ne du ñu ñoom. du loola dara dañ ci tirer leçon. Mm-hmm. xam nga boo génnee ci mbir nga natt sa bopp nga jàppoon na bu ñu la tee réew mi day yëngatu ñu jàppale lépp na salaw ñu denc la fenn une semaine. Mm-hmm. nga génn am ñu naan ndeysaan xoolal ni mu tollu léegi. plateau ku ne ñëw na défendre lu ind indéfendable. mën nañ mm-hmm. leen comprendre. ku nekk wax droit de l'hommiste yi jóg lu ne wax ngir lan soo noppee gars yi dañ koy dominer nañ jóg rek zëmbale et cetera comme d'habitude génn noo dafa doon baña lekk sax ba mu génnee war nañ nit ñi dafa doon lekk malgré tout ça taxul mu tenir <laughs> voilà yooyu yëpp boo ko nattee ci ngay xamee ne man maay kan est-ce que jar na may defaat lii. waaw wala war na am beneen stratégie. effectivement ñi ko doon layal tamit ñu dugg seen ruq marakaan xam seen digganteeg seen borom ak seen conscience est leer na leen waa ji dañ ko tooñ wala dafa tooñ. parce que boo ko jàppee ne daa yóbboo ndimbal ñu téye ko wax ji day yomb kenn musul yóbbu ndimbal dëkk ñu téye la. Hmm. nañu wax nit ñi ni mu amee. loolu nag ku mu neex nag nga def li la neex sa borom man dama wax toujours ne bu ñu fàttali dañu day ak borom bi. suñu bàmmeel parce que tamit politique bi bu ñu jàppee ne fii la quoi dañuy stratégie la. kon loolu ñu ñu natt ko bi ci topp ma gëmloo politicien ne. Hmm. fekk cinquante ans benn leader mënatul jóg loo xale mu xeex ngir pour mu dee. parce que par génération la. Hmm. fekk cinquante ans. benn leader du defati lu Sonko def. parce que amul tax. Hmm. circonstance <coughs> dafa am lu koy créer. so Sonko dafa am euh, conjoncture bu ko créer. conjoncture boobu pour mu ñëwaat kañ la maanaam faw mu am nguur gu dëngaat nguur guy jaay doole nguur guy rey di tëje hmm. riposte am. mais ñii jaaruñu sax yoon woowu. opposition bi dafi nekk mais du ñu mës a amati wax ko leader politique yi. Bougane nag keneen a ci yam kenn dootul xeex loo xale yi fekk cinquante ans. Hmm. ku yëboon a xool benn stratégie su nekkee dangay ngay song nguur pour ñu tëj la xale yi dootuñu jóg duñ tëjati kenn man mii man mii kenn dootuma jóglooti xanaa mu doon sonkoo mu changé ma gis beneen sonkoo te kii may gis gor la gor la gor la déedéet gor la la ñu xamoon démb ca maam mhm. ñépp a baax nag dañu naan séeréer joolaa kenn du wor ku wor gis ko boo mhm. ma laa ngay wor sa pop ku sa peuple kon jàpp leen ne ma jox buyaan leçon bugaan ma gëm loola ne benn leader politique dootul jóg la ci jeunesse bi ci Sénégal fekk cinquante ans wala boog nga nangu ne est-ce que ndëngati bi nekkoon ci Macky Sall mën na fi ñëwaat fekk cinquante ans te ñoo fi nekk mënul ne. Mhm. mënul ne kon il faut nga jàng xam lan moo waraloon Sonko phénomène mhm. benn Sonko dafa dëggu d'abord balaa ndëngati di ñëw Sonko produit ru ko euh, euh, produit wu maa ngi naan produit wu tey mën naa laa diggante université la ak euh, élèves étudiants yi nga xam ne ñoo dunda moo tax Imam Kanté. Imam Kanté sama xarit la mon ami dama koy dénk dama gis fan yi day song waa Pastef lu trop maa koy dénk tey duma ma attaqué Imam Kanté mel na Imam Kanté mhm. Imam jàpp naa ne yaa ngi bokk ci ñi waroon gën a bëgg a Sonko mhm. génération ma xam nañu ma xam naa leen ñooñu ñooy génération bi tabax mosquée bi nekk biir université et association bi nga nag ayamit association xamal étudiant musulman yooyu mhm. génération Kanté yi la bi ñuy tabax mosquée bi biir cité temps Abdou Diouf la xeexoo la amoon ba Diouf sax intervenir na ci ay yat laa wax biir cité. gars yi da ngeen fi tabax mosquée bi. ñii di xeex fii non bu ngeen fi tabaxee gars yi day waxu église fii nangam nangam te ana cité lépp a nga fa biir. tijaan dañuy wasa fa. Euh, yàlla yàlla yi sax ñoo nga fa léegi. kon wax la ne xeex boobu boo ko mënee ku mel nii lañ soxla woon bi ngeen di xeex. diggante lycée ak université yi genre génération bii lañ bëggoon sonkoo ci la fële. Mhm. kon kooku bu ñëwee da ngay xam lu tax ma gis sama bopp ci Sonko kii laa doon xaar parce que dañu yàgg xeex ci mouvement ñun dañuy yàgg xeex ci mouvement islamique yi di séntu koo xam ne mooy incarner leader bi ñu tànte ko ci ñu bëri mënu feeñ dañ ko tànte ci ñu bëri génnul mais njëkki Sonko fël la kon yow dàmm na nekkal adversaire nekkal politicien mais dama ne jàng nga alif laam miim xulibati ruum bi yàlla waxee yonent bi de am na xeex bu amoon fii fekku la fi entre le Perses et les Romains. le romains ñoo le perse yi ñoo gañoon les romain te man diine perse yi bëgguma ko te diine romain yi du moom laa gërëm parce que sa bos laa gërëm mais bu ñuy jàkkaarloowaatee seetal li ñu tuddee mal nécessaire nga farak romain yi contre les perses lu tax maanaam bu la tegalee ñaari adversaire yoo xam ne dëppool ak ñoom sax seetal ki gën a oyofle xanaa imaam dooma ne ñële féet ca Macky Sall la ñoo gën a oyofle sonkoo mi ñaari lor bu day sa kaw seetal bi gën a oyof kon imaam maa lay ñaan. Mhm. Sonko nga bëgg ko. parce que kii nga doon xaar bi ngay xaru université bi ngeen di xeex université pour ngeen taxaw lii élèves étudiants yi commencé ko Limamou Laye Kennedy euh, li ma dañu daan def ñun dañu daan wër lycée yi man ku ma fekkoon si da nga yaakaar étudiant laa lii lañ doon xeex ba Sonko fële ci. léegi nañ ko jàppale ngir yàlla. kon loolu ma dénk ko ko incha nga ba mu ñor nag <laughs> ko a comprendre. Mm-hmm. kon loolu ñu bàyyi ko xel euh, xam ne bëgg naa ko wax ci Bougane ak ñi nga xam ne ñooy compte bëgguma nag ne Sonko mel ni malaaka la non non non non gis naa ko sax ci Abdou Karim Keroog. Mm-hmm. Sonko bi mu jullee ba gars yi di ko wane mu mel ni xol bi dafa tàngati. Mm-hmm. bu mu ñu rey fii 2019 dañu daan dem fu ne muy julli léegi léegi ak pes ñu ngi fële julli wu ñu bëggee Abdou Karim noo wax ndax mosul toog ci béréb muy def émission wala am lu ko occupé ba ñu julli julli ba raw ko te jógul dem julli ji loolu dalay arrivé. Mm-hmm. mën nga toog fenn comme day émission nii